mu demoon seeti ñenn ci ñi nga xam ni kon jotoon na leen jox jiwu laata nawet bi honorable député Abdou Lahad Seck Sadaga porox ndolu ci boobu jotaay yéey yàbb ci li nga xam ni président Macky Sall def na ko jël ñenn ci ñooñ idi yi dugal ci biir gouvernement bi jël Idrissa Seck dénk ko conseil économique social environnemental. Euh, sant président de la ci gouvernement bu bees bi ci taxawaay bi mu taxaw pour defar gouvernement boo xam ne euh, opposition bi yëpp la woo bàyyiwul Samba bàyyiwul ma dem di féliciter ñi nga xam ne wuy ji nañ ko parce que président de la réew mi ñor na ko te gis nañ ne li mu def nga xam ne def na ko ci gouvernement bi mu woote mooy gouvernement union am na ndam ci àddina bi lu tax mu am ndam ci àddina bi mooy tey euh, suñu réew yi ñu dañ de dendal fu mel ne Côte d'Ivoire Guinée ak euh, Mali su fekkoon ne li président de la teel a woote waxtaan ñoom defe woon nañ ko noonu li xew foofu du fa am parce que teel nu ko def ñi ko wuy ji ñoom it xam nañ ne réew mi seenum réew la ñu sacrifier seen bopp ñoom it ñu ngi leen di féliciter di ko tàmmalee ci président Idriss Seck ak ñi ñu àndal ñëpp parce que réew mi ñor na leen président de la république réew mu ñor ñor ko ak bañ réew mu tàkk moo tax mu def loolu. parce que tey réew bu tollee fii surtout mu am jours yi ñu am ca pétrole am gaz am ay réew yu bari yoo xam ne seen ad seen xel li ciy nekk muy réew yu am doole yi mooy ay réew yi am yooyu ñu leen di fexe ba ñu am coow seen biir ñu mën di sàcc seen pétrole ak di leen yan

loolu it ñu ngi ciy profité di ko ci félicité di wax nag ne loolu ñëpp ko ci ñu ngi diine ji dañ ko ci war nañ ko ci gën a félicité ñiy yëngu ci diine. mais ñi nga xam dañ ciy wax di wax ne dañ koy waxal bu président de la defee erreur ñu wax ko kon tey bu defee lii war nañ ci wax wax ne ñu doon wax naan war nañu manifester wu na ñëw ci manifestation bi dem na jàkkaarloo ak ki mu war a wax wax ko li mu ko war a def loo xam ne réew mi yëpp la ko defal àddina ko defal ba yeneen réew yi di ko ci félicité war nañ honorable député it rafetlu loolu jéego yi nga xam ne nguur gi defoon na ko jëmale ko ci baykat yi ci jox leen ay jiw yu am solo. ñu joxoon fi ay nit jiw yoo xam ne dañ leen ko joxoon ñëw pour seet si leen ndax xool si fi ñu toll ci gerte gi ci jiw ci mbay mi ak taxawaay beeg yooyu. bi jaaraale it nag ci toolu àll bii nga xam ne euh, dañ ko bayal Serigne Mountakha. mais xool nañ gerte gi euh, tool yi gis nañ ko gis nañ. seet nañ ci ay quelques tool parce que mënuñoo dem ci yëpp parce que ci département bi fu bari yu bon fa jiw comme niñ ko daan defee mais loolu nag li ñu wala fi wax feccum euh, liir bu neexee yaa jaa jàpp ci mbagg yi euh, chaque jour dañ ciy félicité waale président de la république félicité ministre agriculture ci taxawaay bi mu def ci ñun ci loolu ba nga xam ne mën nañ koo taxawu euh, di félicité baykat yi ci seen taxawaay parce que liñ def am na solo tool trop. Euh, gerte gi nag wax dëgg yàlla am na ci ay tool yoo xam ne nawet bi moom àgg na fa baax macha allah gerte gi macha allah mais dañ ci fekk ay nji ndaw yoo xam ne xëy na gerte gi na mu war a demee demeewul mais loolu lépp teewul euh, na mu war a ñore des na mais teewul meññ na loolu dañ ci sant yàlla di wax it ne euh, président de la République ñu koy ñaan ñu gën a jàppale baykat yi ci taxawaay bi comme ni ñu ko defee parce que ñu doon naan jiw yu baaxul jiw yu leer na ne jiw bu baax la. Euh, ñu doon wax naan nawet bi baaxul it euh, daanu nañ parce que ñun bu ñu xoolee gerte gi nji yu mag yëpp macha allah. danañ dégg léeg-léeg sax nit di wax prix gerte gi nañ koy ba 500 mais ñu koy wax dañoo xamul prix euh, gerte moom bu àggee foofu rek dana metti ci njaayum diw mi wala dana fe metti ci liggéeykat ñi nga xam ne dana méttiwaat sax ci béykat yi pour pour ëllëg ñu mën a am jiw. ma ko gërëm bu baax ndax ren jii ñu bari ñoo xam ne moo leen joxoon jiw. yiw yi nag tubaarkàlla sant nañ ci bu baax ndax toolu toolu arba bii nga xam ne moom moom la ñu jox muy toolu Sëñ munta noo ngi ko ci sant bu baax ndax noo ngi ciy daan suñu doole bu baax a baax amoon na fa ndax koo xam ne kii war ngaa liggéeyal Serigne Touba tasanteeg jamono jii ñu ne ku ne ne kaay liggéeyal war nga war nga war nga koo sant bu baax noo ngi ko ci sant bu baax nag mu ngi ci encouragé noo ngi ciy liggéey bu baax a baax di ci ñaq lii mu def de yàgg na koo def yoo xam naa ne ku dugg ci détaillé ko du mën a sotti ndax tund yëpp daal mu ne suñ koo lim daal tund yëpp la jox keem dañoo jaaxle woon ci jiw nag ku ne di xalaat foo mën a amee jiw yàlla dogal mu wuyal téléphone am woote ne léegi maa ngi fiy joxe jiw jox na ñëpp yàlla dogal na nag lim fi joxe gerte gi baax na. xam naa lim tantaani kémb dina ci mën a tol araba yi bi wax dëgg moko ko bopam jox ñu jiwam ne léegi ñew leen beyal señ Muntaxa tol alarba ñu rafetlu ko yit nak wa tundu yu bépp rafetlu ko de yalla ñepp ci jaaxle won ndax graw yow yoro njegu kilo kilo cinq dem ñu di la jaay kilo mil francs wala kilo visa, doko mëna ko kon nag boo amee ku la ko joxal wax dëgg yàlla booy boo sant yàlla sant ko. ab de sant nañ ko. taxaw na tund bi de xam naa lu am boole naa ci waa tund bi ay at a de ba mu foloog léegi moo leen di jox jiw bu ci ren gii nii nii moo leen jox jiw yéen moom dugg ngeen ci gerte gi xam ngeen ne moom kooka moom xam ngeen ne moom mën naa génnewaat jiw wax dëgg yàlla to kum co joxe it nag topp la ca dara topp la ca dara nag. ndax bu ko neexoon mu ne la jiw bi ñëw leen ma jox leen ko lebal leen ko bu waxtu jotee ngeen fay ma teg ci dara wala ngeen jox ma la ngeen ma joxoon waaye defu ko da leen di jàppale.